Macky Sall am na ko ak xalif général de Mourides euh, muy fatwa bo xam tamit libertinage ak li nga xam dañ koy téré ci l'islam te ñuy def ko feulé ci Touba euh, xalif général néna tek teg na ci bakkanam ba lolé di dak ci ni wala ci nële. suite Quotidien suite mom dafa ñëw rek euh, ci visite bi nga xam ne président Macky Sall def na ko fële nga xam mom moy mooy Touba état bi nak ñom jël nañ li nga xam mom moy dogal pour mëna top wala jappalé en tout cas. Euh, foofu nga xam ne mooy cité religieuse bi ci la nga xam ne ñu ngi ko fay bañ wala ñu ngi ko fay def ci application yi nga xam ne xalif bi daal nee na nañ ko def euh, fi mu nekk nii état bi taxaw na si fi mu nekk it ñu ñëw ci euh, local yi à date échue donc. décembre waaw opposition bi moom mi ngi pressé pouvoir bi tamit mi ngi rassuré xamal leen ne incha allah rabi ci kàttanu yàlla loolu nga xam ne ñu ngi ko bëgg bu neexee suñu borom. Euh, dafay dafay dafay am donc. déjà euh, Aly Ngouille Ndiaye gis naa si benn journal mu naan 20 euh, millions la caution bi. waaw caution bi fi mu nekk nii jàpp nañ ko. jàpp nañ ko léegi ku bëgg a nekk maire ku bëgg a nekk maire ci ci ci gox da ngay joxe caution 20 millions donc déjà loolu mu nekk loo xam ne dafay dafa dafay ñëw donc. si daal moom ah bëri na de te maire ñu ngi jooy naan ak 3 de la décentralisation bi boobu ñu ko dindee ba léegi amatuñu dara ça dépend daal décision géographique ñoo bëgg ñoo bëgg ñoo bëgg nekk ñoo bëgg nekk mais voilà dañu farlo bo dama benn problème y a un préapp donc laas laas dafa ñëwaat tey jii ci ki nga xam ne moom mooy euh, moom mooy visite bi nga xam ne président Macky Sall demoon na ko def fële ci Touba euh, sëñ Mountakha di expliquer l'élection wu Macky Sall ni mu def ba ba ba ñu éliraat ko donc moom euh, wax na ko donc tey laas def si ñëw ñëw tamit ci euh, Coupe d'Afrique bi nga xam ne mooy Sénégal Angola bi euh, Cissé Gana ak Mané ñoom ñëpp wax nañ segg seggaat toj tojaat mbir yi ba xam ni nga xam ne noonu lay noonu lay demee donc kon dèjà loolee nekk na nga xam def si taxaw rassemblement fii ci Dakar nag samedi bi aar li ñu bokk Euh, ñi ngi dànkaafu ki nga xam ne moom mooy préfet bi. waaw nee nañu samedi ñu bëgg marche. waaw mais ñoom aussi ñi ngi marche bi léegi. waaw ah. ah. waaw mais de toute façon dans sans violence la kañ amul problème. oui mais bon dëkk bi aussi dañu am leneen lu ñu war a def. ñu hmm. bàyyi di taxawal ñoom loolu la ñu am. ah. Hmm. ah ñoom loolu la ñu am. ok donc euh, mi ngi noonu ah ki nga xam ne mooy journal L'As donc moom loolu la loolu loolu la si def. Euh, donc mu nekk loo xam ne rek wax na si. waaw mais defal naa ko man maa ngi gis ñu ne Aliou Ngouille nee na 10 millions la léegi man kële na ma 20 millions. Ah, Alain Ndiaye fixé le cochon à 10 millions. 000 euros. Parce que Alain Lolo. Ah, l'air ouais. Hein? De façon 10, 10 millions, 20 millions. Donc tu m'en as dit que tu le millions. <laughs> du, du simple au double. Du simple au ah, double. Donc. Euh, nous avons un guest là, nous avons un communiqué officiel. Ah. Voilà, voilà, communiqué officiel. Donc, je euh, l'ingénieur. Donc, je suis un gars aussi. Donc, suis un gars qui a fixé la question à 10 millions. Bon, donc pour les échanges premiers qui est connu. Ah, là, si nous avons d'après une source d'al, 10 millions. Mais presque, nous avons à l'unanimité, nous avons 20 millions. 20 millions là, donc, nous avons le one du mujjee ak à ay këtam voilà justement enquête enquête moom dafa ñëw le temps de l'austérité donc présent, bien nga xam moment moom mooy Macky Sall xam nga yaa ma ko doon wax démb ne ma dafa tëj consulat

waa ñi nga xam ne da nga nekk sama jarbaat rek man la demal voilà ok ah d'accord diplôme ah de ah oui oui bien sûr ñi jàng jóge ENAC ñoom it seen wala école de diplomatie waaw waaw waaw euh, Sénégal Ouganda vendredi suba 19h Inch'Allah, Rabbi. bon euh, enquête nag li mu wax ne ne les lions pas si favoris que ça voilà donc on déjà on va y croire encore on va y croire am gëm-gëm voilà donc xalif euh, général des mourides fatwa bi nga xam def ko ñaan na Macky saal pour mu dimbali ko pour fatwa woowu ñu mun koo respecté. Karim Fofana du mooy ministre boobu. waaw waaye xoolal day doxal ba mu sër sàpp. da koy may tëdd di mët sëkk def. loolu la wax de. loolu la loolu la loolu la wax de loolu la wax de. Euh, autoroute à péage bi Ila Touba bi nag gaa yi laas euh, enquête wax ne lan moo tax. Euh, prix yi kenn mënu koo wàcce waaw donc wax na ko ci page 5 am la gaay yi bu ñu investissement dañ koy amortir ci ben ci ben temps ci ben temps te banque yi ñoom xam nga suñu la tënkee mom duñ la yërëm duñ la yërëm te amulo amulo amulo ben marge de manœuvre waaw duñ la ma de waaw doy taamoo lay lebal waaw Vox Populi Vox dafa ñëwaat ci visite chef de l'État bi mu def demb fele ci Touba xalif général des Mourides bi Macky Sall ak présidentiel bi donc mom nee lim doon ñaan suñu borom subhanahu wa taala yalla may na ko mhm donc nee na mon vœu a été exaucé donc moom ñaanal na ki nga xam ne moom mooy kii nee na nag moom li waral loolu mooy dafa am bor bu mu warloo woon digganteem ak Macky Sall euh, fay na ko donc euh, nee na sëñ Touba fayal na ko ko wax dëgg neex yàlla fayal ko boppam ba pare jox Macky victoire comme mu mel ni daal daa am loo xam ne daal euh, teranga teraanga bu doxoon seen kenn du sëriñ Touba seen diggante la voilà donc moom ci wàllu baatin la jàpp ne si la koy fayee ki nga xam ne mooy Macky Sall donc fay na ko si mu mu kii donc Matar Ba di ministre des sports nee na équipe bi xam na ne trophée bi du yomb de. ah waaye nag dañu ñëw pour jël ko. waaw ah, waaw waaw loolu la wax. xam na ne du yomb mais dañu ñëw c'est le meilleur équipe africaines. waaw waaw ah. waaw donc kon déjà loolu. nekk na li nga xam daf si kii Pop ñëwaat na également ci chiffre clé ak feuille majeure kii bi euh, coupe premier tour coupe d'Afrique bi 36 matchs ñoo ci am 68 bi 11 joueurs yoo xam ne daal dañu dugal 2 buts donc yooyu daal si la si si la si wax ci.

man xam naa li nga def ci man ak fi ma toll pour jàppale ma ba ma am ndam. dëgg la dèjà loolu mu nekk loo xam ne. daf see chambre criminelle de Dakar également wal fi ñëwaat si nee na procédé longue détention donc mu mel ni procès yi ñu génn ni daal ci chambre bi euh, longue détention yi nga xam ne dañ fa dañ fa yàgg euh, moom donc mu nekk règlement 5 UMOA bi daal euh, xam nga démb maa lay wax ne la kële dafa waroon dem nu mu tudd sax Khalifa Sall. donc gars yi nga wax daal de dafay entre procureur bi ak défense bi ci règlement lim 5 euh, UMOA xam nga règlement 5 UMOA bi euh, daanaka moom moo génne woon euh, kii Thion. voilà donc gars yi ne Khalifa Sall aussi. pas de demi mesure. voilà donc amul demi mesure quoi donc ay huit ans de de de détention donc kii di Ahmed Ba ak Akoli tamit perpète lañ leen di. lañ leen di waajal keneen kii pour juróom fukk 250 francs si la jën njaay rey benn xaritam juróom fukk wa donc daal mu melni chambre criminelle tay dal euh loolu lañ ci wax donc euh, pour expliquer leen 250 ak yoy niñ ko reyee buñu démé ci euh, quotidien euh ci Walf Quotidien dina leen si mun wax. tàggat yaram euh, stade. stade dafa ñew ci li nga xam moy coupe coupe d'Afrique bi duo bi nga xam ne duel bi nga xam amna am na diggante Sadio Mané ak sala ku ci nek ci ñom ñaari but la dugal coup pour coup. ci premier tour bi. ils sont égalité. wa wa donc déjà pharaon bi mo njëkk lap Euh, Sadio ñëw ne ko saay loolu làpp ma delloo la ko. ah waaw waaw te xoolal yal na ko. waaw yal na ko raw waaw waaw non wax ko ci kaw ñu lay sénégalais lañ. <laughs> yal na ko saajo mais nag booy bi aussi dafa dem fula ak fayda dafa ne suba sa anniversaire dina si def dara ah. kan moo am te ngaa kuul. booy bi na indi coupe bi moo gën sama anniversaire ñoom Cheikh Faye ñoom kii dañ koy coaché ay ñoom Daouda ak yéen ñii. ñun tamit fii lañ ah, nekk nii kii nag kan Cheikh Faye dugal nga ko si nee na nee na ñëw kay waxala wax waxeet rek man daal Seydina man daal jaaxal na ma man moom bu dee sama coobare man personnellement bu dee man kese man te kenn tënku ma Cheikh Faye Kader ak Pape Cheikh bu ñu ñëw bokkuñu bu dee tënkuwuñ ma quoi mais tamit nit day koo koy séddee koo koy xoole daaw daa ngi nii saa yi ma fi indi daaw de na ma bàyyil mu sedd ah, nit koo koy xoole dëgg la ma ne si Cheikh ah moo demee noonu de Cheikh Faye xoole mais bu dee sama coobare man kese kese ñu bàyyi ma ak sama teyu bakkan booy bi du ñëw Kader du ñëw Pape Cheikh du ñëw wax dëgg mais nag comme ah booy Kader li wax dëgg la anniversaire bu fekkee dañ ma bàyyi man kese kese kese doo ñëw parce booy ay mbiskit ngay indi waaw la ah. booy bi mbiskit lay indi de moom laa la wax waaw loolu tax may indi jàmm mais bu ñu ma bàyyee bi mbiskit waaye da ngay sóob booy doo joxe dara wala booy ñaaw eh. sa booy bi uh-huh. sa booy bi ñëw na de booy ñaar ñetti défi la teg la waaw nee na moom dafa bëgg a nekk VIP benn. VIP la ba pare. waaw nee na Balla Gaye moo ko teree nelaw te dina ko atteindre. Hmm. maanaam dina dina bëreeg booy la Balla ko bagage. Balla bëri na doole ah, xaw ma de booy bi daal moo ma ko de. macha allah sama yoon xaw yi man du ma ci sori. booy ñaar daal nee na ñetti défi la am benn mooy dafa bëgg a nekk VIP benn. waaw ñëpp teg ko fi nga ñaareel bi nee na cible am maanaam bëtam fi mu ko teg. mooy defal bagaas Balla Gaye Balla dafa bëri doole mhm. dafa mën bëre te dafa mhm. soxor loolu yëpp moom ah. ñuy dem ci suuf ci terrain bi daal xam nga booy Cheikh Faye du bëre Cheikh Faye du bëre amul doole <laughs> non moom ak yow jàll kay foofu la nga ma yow jàll ko mën <laughs> moo da koy wàccee ci minute bu ak ne prib mu wàcce ko booy bii nii mais nag bu wàcce keneen moo ma gënal hmm. Hmm, bu wàcce keneen xam nga Paul Saint Kéré ñu ngi waaj a Kader aussi war na fa dem troisième bi lan troisième bi nee na moom géejawaay ma xam nga mayu leen jàmm moom géejawaay ñëpp la defal bagage fi mel la dëggee te moo ci des ak Balla Gaye ñaar ñooñu moom nee na bakkanam bi la teg mais a leen defal léegi daal dafa bëgg jël rakk ji Sa Thiès ko léegi dafa bëgg dem si Balla moom Sa Thiès dafa bëre woon ak moom nii rek de parce que parce da ko doon bloqué ne ko ne ko balaa ngay dem ci Balla jaaral ci man léegi defal na bagage ça defal na ko bagage léegi nag Balla moom nee na Balla teg bëtam moom nee moom moom moom ci kàttan yàlla moom Balla dina ko tontu mais nag dina nekk combat bu doy waar. ah mais nag xam nga galab nag garab ci kaw lay fekkante ah, ah, ah, Balla na bàyyi xel de ah nag ci kaw lay fekkante hmm. te booy baa ngi yéeg de booy baa ngi ñëw de. am na en tout cas géejaay moom géejaay moom booy bi booy moom booy moom da bàyyi xel. en daal am na yenn combat wala yenn affiche yoo xam ni gars yi mënatuñ ko bañ te mënuñu si mënuñu voilà te mënatuñu gumb si loolu daal. Ah. mënul ne parce que nag euh, voilà il faut que mu tourner il faut gars la bëre. booy bi daal te fii il faut tamit yeneen champion génn comme ni ko euh, Gaston ma ngi defoon ak claf bi. foofu la ñoom Modou Lo génnee ñoom Eumeu ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. yaa ngi ñëw nag ay ñoom voilà ki temps yi ki nekk au euh, top. rëg-rëg sam booy la. ah oui mu. ah nan nga ma booy bi sa booy la tey. booy da ngay waar quoi dem na ko bañoon. non non musuma ko bañ. <laughs> ma ànd ak ku gañewul en tout cas mi ngi sa copain bi la sama kol ñaap kol ñaap kol ah est-ce que kol ñaap yu bees la de yow ah mais Lamine Samba combat royal 28 juillet Lamine Samba nee Mon dal, il craint le pire Et puis, et puis dañ féliciter il a été désigné meilleur reporter euh, de lutte euh, de l'année ah oui hein Machallah, voilà ah super loolu moom félicitation yal na Il y a defal ko ko mu gagné ça. ay ati ati ah oui ça c'est ça c'est super ah Lamine Dia Lamine Samba donc euh, vraiment loolu moom sa kol creusi ñàpp moom moo jox information bi donc il y a ci loolu en tout cas mais loolu on na ko ki nekk Thiès ah bon wax dëgg ñàpp boobu daal maa ngi hésité daal. kon daal moom dafa crise bi saa <laughs> dafa mel ni ay ngàddam la de. ay ay marteau 7 la yor rek. en tout mi ngi noonu daal donc booy Niang daal ci sunu làmb moom daal li mu wax. Hmm. li leer la leer na nee na daal moom. il en veut. voilà vraiment dafa xiif VIP bi daal VIP bi daal moom. wax hmm. dëgg yàlla nañ ko ko gars yi teg par force. non VIP la waaw.

booy dañuy ñëw de. Mhm. booy moom munoo si dara dara dara ball na pare booy dañuy ñëw. dañuy ñëw daf ci am ay booy yoo xam ne dañ ko bàyyi xel maanaam defal ko bagage rek mooy seen xel. comme moom nu mu tegee woon ba Tyson ak am dara. mais nag ko joxul woon chance. mais léegi nag gars yi nag chacun son tour chez le coiffeur. voilà booy nag fi mu ne nii ñëw nag indil nañ ko nag pression bon. ne booy dañuy ñëw. day day taxaw surtout nii moom may ko jàmm xam na ko day taxaw day ñëw. dana metti de. waaw ah, day taxaw de. Modou loo aussi booy ba booy amaa mayu ko fu mu lekkee nak kii da koy da koy. nee na daal nañ ko ko say combat boobu combat boobu nar a doy waar. bu ko ak ak ama mm, non combat boobu. combat doy waar ko ko la li ñuy wax mi ngi noonu daal donc sunu làmb daal tey sa waay ci loolu la xëy. Mm. donc euh, voilà di gërëm ñëpp. di wax gars yi daal jënd leen journaux yi ak di la fàttali aussi Brésil defal na bagage Argentine de. Messi jommi na de. non la yow kay ñu waxal Messi rek ak Neymar. booy bi xaw ma Zizi xaw ma lan booy boobu. moom booy bi de saa yi yóbbu na leen final. non dal man dal euh, vraiment les Messi les gens ne comprennent pas si clubum day tak way waaye yow lu nek lay def. way su génnee fofu dal boy neuf bi daal booy xaw ma Jésus xaw ma la Jésus tam boy boobu noonu. booy bi daal saa yi tuuti mu rey gars yi. que nag les meilleurs footballeurs euh, du monde saa yi foofu nañ nek de. booy bi dof la de booy bi dof. waaw 10 h jotna Seydina lu ñu doy tàggoo. ah di jox gars dig daje inshallah suba le grand jour. Hmm. bés bu mag bi le 5 jour anniversaire. waaw donc mu nek tàqal nañu nga ñoo wax. ah mais damay kii rek ah. fii nag laa jaaree ñu may japp mbaa ma jaaree fi baleen ba faw depuis une semaine ñu ngi anniversaire rek ah non damay expliqué rek daaw da invité d'honneur Cheikh Faye sa ñëw ak sa bañ a ñëw yëpp parent koy indaal si moo koy indaale Kader ak délégation ba ak Kader ak Pape Cheikh waaw ñoom ñëpp yaa ngi leen daal waaw ok am problème mais bu ñu ñëwee nag nañ yem tamit gan nañ ñëw rek toog jàpp seen njàmbur aussi parce que moindre occasion bu ñu def ma dàqle xam nga lan mooy problème bi li ngi leen yekk yëpp ñëw xam ne la wóor na ñu ngi daas seen bàgg Ah, booy jubuñu Kanel moom yëgg naa fan naa ci wéyu béy ne mbiskit lay indi jërëjëf euh, ah, mesdames et messieurs yéen a ngi doon déglu seen euh, li gën a euh, fës si xëtu yéen kaay yi di leen jox daje 11 heures parce que dañuy yendu ak Momo Dia bi nga xam dafa génne album bu bees ak Prince Art fas yéene def concert bu rëy si ses muy premier concert bi nga xam ne dafay nekk devant presque vingt mille personnes ah, bi nga xam ñom ñoom Youssou Ndour rek ñoko ko ñeme ak euh, magam wali sek ak ñeneen ak ak Pape Diouf ak ñeneen nga xam vraiment ce sont les sommités de la musique euh, sénégalaise muy challenge bu rëy si moom war ko jappalé ah vraiment jappalé tamit Abba No Stress bi nga xam demain il sera au Grand Théâtre pour MDR du rire bi nga xam day coïncider ak anniversaire Seydina Omar Borom Niang. waxal ci kaw waxal ci kaw. voilà bëgg trop bëgg gâteau voilà. ñi ngay waxal vraiment c'est deux jeunes qui en veulent qui vont organiser euh, de grands événements vraiment déterminants pour seen carrière carrière loo xam ne xam solo trop si seen tournée de carrière muy abanos stress suba Grand Théâtre gannaaw suba Momo Dieng ngeen nar a fas yéene nag yéendu ak Momo Dieng tey fii si King FM euh, Mati Carter suñu yaayu rajo bi ndeysaan nar ko euh, dalal euh, moom ak DJ Cool 11h ba 14h après 14h ba 16h 16h ba 18h vraiment yendo ak Momo Dieng soo leen bëggee jokkante ak ñoom